kër ba maa diyu njool ma woote momar binta njëkk a gëm ca góor ña yéemu naa ci ngëneeli diine Sidi digalu ko General général de Layène Sidina Mouhamadou Makar Lai njabootu Mamomar Omar Binta Samb di Saba di njëkk gëm Sidina Limaamul Mahdiwul Muntazar alayhi Salam, ñoy and ak fédération des Daire Layène du Sénégal di def bëccëgu ñaan bu am solo di ñaanal Mame Omar Binta Samb 23 décembre sa atum 2023 lay doon ci préwo bu Layène 9h dinañ def wacce kamil bu 15h jotté ginaaw tisbar ñu def conférence bu am solo ki koy animé di Libaas Wade ñu ngi ciy woo ñëpp. jullil ci baay laay dolli ay dara jaam ci diine.